Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf fitna gi ci campagne électorale bi moom la yéene kay xëyee tey réew mi quotidien di ñu xamal ni gannaaw li xew ci diwaanum Ndar tëkkuwante yi tamit ñu nemmeeku ko ci guddi gi Ousmane Sonko mel ni ku mujj dalal yëf ndax ci biir yéene kay bi njiital Pastef sàkku na ci ay ñu daal di mujj ànd ak dal waaye Pastef yamu ca ndaxte porté na plainte ki nga xamante ne moom mooy Barthélémy Dias bu Gueye Dany ni Mansour Faye ba ci Pape Djibril Fall ak Assane fa ca jamono jojee ci biir yéenekaay bi ba tey Barthélémy Dias di xam ne ni amul benn service bu état bi nga xamante ne mën naa firnde ni jënd na ay gànnaay li waral nag njiital Pastef doxalee ni démb la tribune yéenekaay du ñu xamal ni kii di Bassirou Diomaye Faye moom moo fa jaar ba tax moom njiital Pastef mujj teg gatsa gatsa gi ci suuf ci L'As Quotidien moom njiital Pastef Ousmane Sonko ma ngay sàkku nag ci njiitu mi Bassirou Diomaye Faye mu jël ay responsabilité am ci fitna gi ñu nemmeeku ci campagne campagne gi le le quotidien moom li mu gis mooy ay manœuvre yi nga xamante ne moo tax ba dal mujj am ci yëf yi looloo tax kon Ousmane Sonko mujj bàyyi meeting bi nga xamante ne ci Baobab la ko bëggoon a amal Barthélemy Diaz di weddi ni kon yor na ay ngànnaay jamono jooje société civile di ŋàññ li nga xamante ne moom mooy attaque yu ñu nemmeeku ci biir campagne bi rawatina ci diwaanub Ndar Géej gannaaw li xewoon ci Ndar Géej le témoin di ñu xamal ni diggante Ousmane Sonko ak Barthélemy Diaz daal mu mel ni mujjantal gi mucc nañu ci li nga xamante ne moom mooy confrontation yi waaye démb Pastef wane na dooleem ca fi nga xamante ne moom mooy koñu Barthélemy Dias ci boppam sàmm sa kàddu démb nag mujj gi ña nga doon woote dal dal gi mel ni mujj na am bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien yéenekaay bi di xam ne ni Ousmane Sonko mujj na delloo si xelam Barthélemy Dias moom di woote jàmm ak dal ca wet ga Amadou Ba moom jàpp ni débat d'idées moom la ñuy xaar ci candidat yi jamono ji waaye dal gi moom Vox Populi daf ci gis ni daa xaw a niroo ay naxe mbaay ndax gannaaw gàtsa gàtsa gi mu woote woon Sonko sàkku na gaa ci ay ñoñom ñu daal di teg yëf ci suuf ba noppi ne leen ñu pare ndaxte dootuñu nangu léegi benn yoon ku leen indi fitna jamono jooje Barthélémy Dias di ko jox rendez-vous niki tey ji ba ëllëg waaye tamit àjjuma ji ci diwaanub Ndakaaru Ndakaaru mucc mujj gi ci fitna gi waaye ci enquête moom mu mel ni ñëpp ŋàññi nañu li nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ñu ay attaque yéenekaay bi ñu xamal ni police mujj naa teg loxo lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom doomu aadama ñu ci bëri nag ay garde corps lañu gannaaw nag li xew diwaanub Saint-Louis Pastef yóbbu na ci yoon Barthélemy Dias ak ñi mu àndal sàmm sa kàddu nag mel ni kuy weddi tuuma yi ba noppi di jàmbaaraamu tuuma Ousmane Sonko enquête nag li mu jàpp mooy fitna gi mën naa indi sooxee ci jàmm ak dal ci Sénégal classe politique gi ci Sénégal nag le mandat li mu gis mooy dañuy gën di yokk fitna ci réew mi ndax ay jàmmarlo yu ñuy gis seen diggante waaye tamit ay xeetu tëkkuwante li moo tax Sud Quotidien gis ni classe politique gi ci boppam ñoom ñoo a jël responsabilité fitna gi ñu nemmeeku ci campagne bi ba ci sax li nga xamante ne moom la ñu mën a njort ci bisub élection bi bisub élection bi nag bu yóbboo sax ñi nga xamante ne ñoo ci namm indi ay sabotage ñu delluwaat toog ndax ci l'évidence joriñ ji ñu dénk karange bi réew mi Jean Baptiste Tine ma ngay dànkaafu ne keroog ñu nangu benn yoon ay nit di def naka sudul noonu ñi defoon naka sudul noonu ca diwaanub Ndar moom barki démb les échos ñu xamal ni police mujj na leen teg ci wàññ toll nañu ci juróom fukk ak benn ni ay doomu aadama juróom-ñaar sàmm sa kàddu lañu 24 heures nee ñu arsenal bu takku lañu fekk ci ñoom muy ay bombe asphyxiante ay mbolde ay mënat naka noone ay laser ba ci sax ay paaka ki jaasi lu tollu tamit ci juróom-ñaar ni ay oto la police mujj nangu ci ñoom gannaaw violence bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ca Saint-Louis xeex violence bi mu mel ni nag média yi ci seen wàllu bopp am nañ ci wàll moo tax ci biir le soleil ministère bu ñu dénk wàllub jokkoo bi naka noone kored ñu ngiy sàkku ci taskatu xibaar yi bi li taxoon nag ba ñu téyee boob ak léegi néewub Mamadou Moustapha Ba léegi jeex na ndax source a mu ngi ñuy xamal ni gannaaw rapport d'autopsie bi nga xamante ne procureur bi jot na ko jébbal na njabootam li nga xamante ne moom mooy permis d'inhumation bi yéenekaay bi di yégle ni léegi nag li des mooy yoon daa di addu ba xam ana lan moo faat jëwriñ ju ñu dénkoon wàllu finance ci Sénégal ngir xam ana ñan ñoo faat Aziz Dabala taxoon na ba ñu teg loxo ñu bëri ba ci sax Nabou Leye l'observateur dikk ci mbirub feccikat bi di gis ni bi mu dafa mel ni amul cëslaay ndax boo moyul ordonnance de contrôle judiciaire bi daañu ko neenal te moom Nabou Leye dinañ ko convoqué bu yàggul dara ci ay audition de fond ngir càmbar ba xam laale na ci mbir mi FMI càmbar ndimbal gi nga xamante ne war na ko am ci Sénégal ba ñu ci noppee nag réew mi quotidien di ñu xamal ni décaissement moom mënuta am fii ak atum 2025 leneen li mënuta am ci Dakar Times mooy yeesalaat contrat bi nga xamante ne Sénégal moom la sekk ak ci wàllum napp gi yéene kaa bi ñu xamal ni gàllub ci seen wàllu bopp mujj nañu deltu ginnaaw ci yëf yi Sud Quotidien ne ko kay yëf yi du deltu ginnaaw dafa mel ni Union européenne ci boppam danoo gedd waaxub Sénégal Rewmi Sport mi wax ci wàllu Ligue Pro bi nga xamante ne juróomeelu bëccëg championnat bi dañu ko mujj toxal li ko waral mooy situation bi ci dëkk bi waaye tamit élection yi nga xamante ne dañu ko amal ci dibéer gi jongante bi ñu war a amal diggante Burkina Faso ak Sénégal record gis ni test bu rëy la ngir ki nga xamante ne moom mooy Pape li ko waral nag du